nit ki mën nañ ko yeew ak ay feer boo yoree cisaille duñ ko yeewee nit ki mën nañ ko yeew ak ay buum boo yoree paaka duñ ko yeewee waaye nit ki buñ ko yeewee ci xel foog nga am argument yu solit pour mën ko ay yeewee loolu la Ousmane Sonko def waa senegal dafa fekk ñu yeewoon na ci xel mu yeewi leen donc voté yeewi askan bi le 31 ngeen voté yeewi askan bi beneen bi may wax muy taalibe bi ak sëriñ bi sëriñ bi de sëriñ bi bu gaz di jar 100000 mën na koo jënd boo lu mu métti métti sëñ bi day dund. ndax sëñ bi këram dañ ko koy tabaxal otoom dañ ko koy may yëre yi muy sol taalibe tayir bi koy may waaye yow taalibe bi yaay dund embouteillage bi yow taalibe bi yaay dund chômage bi yow bi yaay dund yaay dund inondation bi donc sëriñ bi bu toppee égoom toppee égoom tey jii maanaam ba xalaatu taalibe bi yow taalibe bi nga mën a am sa fulla boo duggee si mbañ gàcce gi voté Ousmane Sonko voté Yewwi Askan bi voté wàllu Sénégal pour la libération de ce pays pour avoir un Sénégal dont tout le monde rêve voté Yewwi Askan bi loolu lu may wax